salaamaaleykum mbokk internet di ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar bu ñu dab léegi soxal Lionel Messi la poule ga képp ku doon xaar retouram ca FC Barcelone nag bu la yeboon na ko génn ci sam xel li ko waral moo di Lionel Messi dootul mën a dem foofee ngir di fa football ndax am na club bu bees tàq laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi ñaan kuy gën ci page bi te abonné go nga abone bés cloche bi nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot di leen fàttali tamit ne xibaar yi ñuy dugal ñoo ngi ciy ànd ak waa bio Afrique bio Afrique nag dañoo am produit yu baax lool ci wirgu yaramu doomu aadama képp ku ko yittewoo mën nga woote ci numéro yooyee bu leen yàlla dëppalee incha allah di nga ca am lu kawe sa njorto. ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi Lionel Messi la poule ga ginnaaw bi mu defee ñaari saison ca Paris ca Ligue 1 bu France jugee fa nag contraam dafa jeex takk foofee ñëpp nag li ñu jàppoon moo di day delluwaat ca Barcelone naan dana dem ca Al nekk ci réewu Arabie Saoudite waaye ñaar yooyu yëpp nag benn amu ci fa mu xaatim contrat moo di Inter Miami kon Lionel Messi génn na Europe ginnaaw bi mu defee ca Europe ñaar fukki at ak ñett maanaam vingt-trois ans ndax ci atum deux mille la jóge woon ca arsantine dem ca FC Barcelone jamono ji nag jóge na ca Europe dem ca Amérique club bu ñu naan Inter Miami David Beckham moom ko contrat bu baax nag la ñu ko xaatimal ca club boobe muy Lionel Messi la poule ga kon nag jamono ji wax ji frenkulaayu na Messi du mën a delluwaat ca Barcelone ndax xaatim na contrat officiellement ca Inter Miami. waaye Lionel Messi la poule ga nag séq na waxtaan ak waa Mundo Deportivo xamal leen ne leen club yi ma bëggoon nag ci Europe bëri nañu lool waaye man bëgg-bëgg bi ma amoon moo di su may des ci Europe ma football ca FC Barcelone waaye loolee kat yembul waaye Mundo tamit laaj na ko nekkinam ak dëkkinam foofe ca Paris. tey mu ne leen su ma leen waxee dëgg rek te yàlla tax sama nekkin man ak sama njaboot neexul woon dara maanaam vie de famille ba ma fa amoon neexul mundoo ne ko lu tax mu ne man ak sama njaboot ci hôtel la ñu dëkkoon te dëkkuwaayu hôtel ak dëkkuwaayu kër du benn loole bokk na ci li tax nekkin bu neex bi ma bëggoon ca Paris amuma ko jamono ji nag am naa contrat ca Inter Miami xaatim naa fa contrat kon damay jugee ca Paris wutali Inter mi Lionel Messi moo yëkkati kàddu yooyu kon ginnaaw bi mu defee ñaari at ca pari Paris fay jugee muy Lionel Messi la poule ga ñaari at la xaatim woon ak beneen at boo xam ne en option la maanaam su ko neexee mu toftal ko ca wéyal loole nag amul ndax officiellement jugee na ca pari xaatim na contrat ci Inter Miami Paris googe nag la fa Lionel Messi jongante ci ay match mi ngi toll ci soixante quinze juróom ñaar fukk ko ak juróom ci ay match la jongante ca Paris 32 bit maanaam fanweer ak ñaari bit la dugal ca club boobee officiel na xaatim na contrat ci Inter Miami gaa ñi vidéo bi foofu la buuree ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm waaye bu leen randal seenug déglu ñoo ngi ñëw ak yéen ci kanam tuuti ak xibaar yi mujj incha allah